wala sax bokk na ci li ngay njëkk a xalaat ci sa xel boobu xale bu jigéen bi est que bi muy génn papaam gis na ko est-ce que xale bu jigéen bi muy génn seen kër est-ce que yaayam gis na ko ngir mbokk yi li muy sol ni muy doyeewaat te ànd ak loolu boo ko jàppantee ba mu àgg ba nga àgg moom ci kër ga nga ne ko ubbil sa armoire ma xool wala ubbil sa valise ma waxoon walaay da ngay fekk armoire ba fees del waaye ànd ak loolu bu solo ba génn ku ko gis gëmm. ndax lu tax lenn ci yaramam lay sàng leneen la ca des ne dàng dàngaara ci biti yenent bi nee na jigéen ñooñu nga xam dañoo jéng dëng ba pare di dëngalaate di dëngalaate mooy li ngeen dégg léegi sànq ndax col googu bu rombee xale yu góor yi dañuy commencé booy cegal daawoon booy mais booy booy bi mool naa booy maaj booy bi dóor booy jaar na yoona loolu mooy lu normal sàng lenn ci sa yaram lenn ci ne dàng dàngal ci biti hmm? dëng ba pare di dëngalaate waaye yonent bi ne ko teg ci nii seen bopp ya mu ngi mel ni comme jigéenu gëléem te mooy périg gi greffage yi nga xam daanaka tey mu ngoog moom la teg seeni bopp hmm? te mbokk jullit yi waxu yonent bi la de sallallahu alayhi wa sallam mèche mèche képp ku deyaaleeg moom te tuubuloo wallahi waxu yonent bi la nee na aljanna waxuwul nga dugg fa waaye yonent bi ne xetu aljana doo ko mos xetu aljana doo ko mos la yonent bi wax lu araam la mbokk yi wallaay fii gine gine Guinée bi nekk suñu pegg nii xew-xew bu fa am ab xale bu jigéen bu dee loolu nekk ci boppam mèche mais maire ya ba ñu jëlee di ko sang wala avant ñu koy sang pour maanaam euh, firi yi mënuñu ko mënuñu wuti paaka pour dagg machine ma lànk du ma dagg xiiti xiiti xiiti affaire mënul dagg ñu dem uti ciseau kazaalika mënul dagg ba xataa dañu dem ci bilim uti lamset ñëw kii mèche bi ne dee duma ma dagg mais ñu ñëw wax ko paay yi paa yi ne leen kon sangee leen ko noonu biñ ci noppee paa yi jeunes yi lañ ko jox ay mbokkam dem leen ngeen julee suuli seen ne foo leen xam. mbokk yi waxu yonent bi la lay duxulul jannata la yonent ñooñu du ñu dugg aljana waxu sa mais dafa ne xetu aljana da nga ko dul mos te loolu tey mu ngi nii tey mbokki jullit xool suñu jigéen ñi bopp neen yaramu neen ngeen ñett bi sax bëgguma gëttu ndax ñoom ñooy suñu yaay ñooñu jur te ànd loolu yàllaa ngi di suñu borom mooy ki leen ko digal comme woor bi gis ngeen woor bi ni mu ko digalee julli noonu noonu la leen digalee càngaay yaram te mooy muur leen seen yaram yaa ayyuhan nabiyu xul li azwaajika wa banaatika wa nisaai lmuminin yudniina alayhinna min jalaabibihin zalika adana an yurafna fala yuzayna wa kaana allahu gafur rahima ey eh, yow yonent bi yow laa wax de ndax lu njiit yow yaay njaag kon lii avant tout yow laa koy njëkk wax mooy Muhammad salaa salaam waxal say jabar Muhammad waxal say doom ak jigéenu ñu gëm yàlla ñépp waaye waaye nañu dee sàng seen yaram nañu dee sàng seen yaram nañu dee col-colin gu jot bopp yi mbagg yi loos yi loxo yi lépp la muuru bu dara feeñ lu dul kay xanaa seen xar kanam ak seen tëkk jariñ loolu rek laa leen première nañu feeñ na feeñ waaye li ci des nañu sàng lépp bu jol bu bu colin gi xat bu cëlin gi yaraax bu cëlin gi gàtt man yàlla tere naa leen lool jigéen warul soloo jigéen li muy sol warul nekk lu gàtt jigéen lu muy sol warul nekk lu yaraax jigéen lu sol warul nekk lu ne ñàpp ci maanaam lu mu tuddati eh, ci yaramam maanaam seere ndax ñoom man yàlla ci jëmmi boppam mandarga gii laa leen utal ci diine ji te mooy mandarga gi dañ leen ciy xamee nit ñii kat ah jigéenu yonent yàlla muhammad salaa salaam lañu ñii jigéenu lislaam lañu te mbokk yi rawatina yéen jigéen ngeen bàyyi ci xel bu baax yàlla bu ne colaay gi da leen di aar wallaay am na benn téere alxiwaarul jinnul muslim fil islaam benn mbokk mu baax bu ñu naan Isa Daoud mooy ki ko taalif ci benn xew-xew boo xamante ni bii mu ngi xewoon Màkka ci wàllu aj ndax benn waay bu fa ay jinne jàppoon mu daanu di di say ñenn ñi tiim di ko dóor jël ñi gis jël seen i euh, nu mu seeni dàll ñi jël ay ay nu mu tuddati seen i bant di dóor di tari ayatul kursi mais Issa Daw bi mu gisee affaire yi dóor yu bëri mais mu ne ay eh, yéen yéen xanaa kii da ngeen ko bëgg a rey kenn nag ci mbooloo mi dal na déet du waa ji moo koy yëg de gis nga jinne bi jàpp waa ji mooy yëg métit yi mais paa waa ji ah Issa Daw da jaaxle ne waaw yow sëñ bi kaay yow lu tax nga ne du maanaam. Euh, waa ji moo yëg métit mi mais jinne bi nga xamante ni bii moo ko jàpp moo yëg métit bi waa ji ne ko kaay mu ñëw mu ko gis nga man mii di wax ak yow mu ne ko naam man mu ne ko man du ma nit man jinne la mu ne ko ah bon mu ne ko waaw Isaa daaw nag profité laaj ko lu bëri maanaam ci seen dund ñoom ñoom jinne yi waaye gis nga ci laaj yi bokk na ci waaw yow dama leen di laaj ñun suñu jigéen ñi naka la ñu mel ci yéen suñu jigéen ñun jigéen maanaam euh, suñu jigéen ñun naka lañu ñu mel ci yéen ndax yéen dama gis lu bari ci yéen da ngeen di song suñu jigéen suñu jigéen naka la mel ci yéen waaye xam nga lan la ko jigéen euh, euh, jinne bi toon jigéen bi def ko ne jinne bi def ko ne gis nga euh, Issa Daawud mun ko naaw mun ko gis nga seeni jigéen bu dee solu nañu bu dee solu nañu ni ko yàlla santaane ñun jinne duñu leen mën a teg bët maanaam day am kiiraay bu yàlla di doxal suñu diggante ñun ak ñoom comme tey yéen ñun yéen mu leen ñu gis ndax yàlla moo def benn kiiraay suñu diggante ñu ne yéen jigéenu jullit nag bu solo ah la yàlla defe ñun ak ñoom duñ leen mën a gis waaye jigéenu jullit bu fekkee ne dafa uññeeku fu mu nekk ñun dañ koy gis moo tax ñun ñuy mu ngoog euh, màbbi ut si leen kon bu yàlla ne falaa yu sëy na boo soloo colin gi dalay aar ba daanaka kenn du lu ci mën a lor te mooy dalay aar ci wàllu rawatina bëtu jinne yi ak ba sax bëtu bëtu bët yi comme ni ñu koy waxee lu lépp daanaka yàlla dala ciy aar dala ciy sàmm te même bu dul dara itam respect dañ la koy jox respect wallahi lu waay nekk délinquant bu gisee nga muuru muurit nga xam moom la yàlla san dina am cër bu mu la jox dafay wuute lool ki nga xam ne dafa ñëw sol pantalon sol jumbax awutam ñaar ñun du ñu nduru ba tax na ki sàngu yaramam respet bi nga xam moom lañ koy jox dafay wut ak ki nga xam dafa sol pantalon ba tamit sax même boo leen duggoon tey ci oto wallahi di nga gis ne sax nit dina jóg may la place am nee la kaay toog ngir lan colaay gi ndax diine la waaye nag sol pantalon ak li mu laa làmbaay nga dugg oto doo gis kenn ku naa naan la euh, euh, maanaam soxna si kaay toog ndax respect moo dul am kon yéen soxna yi na ngeen ci bàyyi xel yàlla moo leen sant yàlla moo leen digal colaay. ñenn ñi ne dañu bëgg a jàppee ni colaay e, ci wàllu jigéen e, mbiru ibaadu la comme ni ñu koy waxee non mbir mi du ay mbiru ibaadu loolu na leer suñu bopp mbir mi mbiru julit la waaye yow say boobu la ñu naan moom léegi de ibaadu la subhaanallahi al azim naam ibaadu la am na nu ñu koy mën a déggee mais bu dee dañ koy déggee comme yeneen kuréel yi fi nekk mbokk yi laa ne loolu moo amul mbiru ibaadu ñuy ay ibaadu lañu. wa ibaadu rahman muy jaamu yàlla ñun ñëpp ay jaamu yàlla lañu waaye nag bu ko teg ci benn kuréel laa ne loolu moo amul du ibaadu yi lañu sant muuraay muuraay mbiru julit la mbiru ku gëm yàlla la mbiru ku gëm yonent yàlla muhammad la mbiru ku gëm lislaam la mbiru ku gëm alquran la nisaa il muminin kon yéen soxna yi na ngeen ci bàyyi xel muuraay lu ñu leen sant la muuraay lu ñu leen digal la na ngeen góorgóorlu ngeen taxaw te ngeen moytandiku yi ngeen di def ci seen bopp ndax mèche boo ko defee sa bopp benn mënoo njàpp julli sa julli nanguloo mèche boo ko defee sa bopp janaaba bu la daree te xam nga yéen jigéen ñi gënu ma leen ko xam jigéen ndëgam yaa ngi wér yaa ngi wér moo tax ma leex de te nga majeur sikki sàkk ne ku ci ni weer bu ci nekk donte benn yoon la di nga ci gis ab mbaax te boo gisee mbaax ba pare mais balaa ngaa julli am na lu lislaam sant am déet balaa ngaa julli am na lu la lislaam sant te mooy balaa ngaa julli war nga sangu sangu ba te sangu janaaba bokk na ci charte yi mais bopp bi dafa war a tooy bopp bi dafa war a tooy hmm? léegi nag meecho yi ndax bëgg na bëgg na ndox déedéet te da nga yéen xale jigéen sax da di jaral sax dem bitig ba jënd mbuus 15 francs ñëw dugal ko ci seen kii takk dugg ci douche bi jël seen sio paccax paccax ci kaw ba ci suuf nga génn nga def yi am nga sangu janaaba mais amuloo sangu ba melokaan bii boo taxawee julli ci yàlla du la nangul julli parce que seetuloo mu nga te nag boo tuubulee li lay xaar xam nga ko ndax yaa ngi di sàggane jaamu yàlla rawatina julli te yàlla nee woon na fa waylu lil musallin alladina an salatihim saahuun mbugal mu ngi xaar xurba ca sawara mu ngi xaar ñi nga xam dañuy jël seen julli di ko kafe di ko foye di ko caaxaane di ko doyadal ba tax na mbokk yi dañu fexe góorgóorlu lii bokkul ci set mees du set bokk maanaam bokkul lu laab ci diine te des fois da nga ci gis ay xale jigéen yoo xamante ni subhanallah dañuy wane ay intellectuel lañu ñu muus lañu ñu mboŋ lañu ñu évoluer lañu yow nga mën a jël mees pendant une semaine def ko sa bopp sa bopp kenn du ko raxas. ñeent sax dañuy sànni la sax ba un mois nga koy bàyyi ci sa bopp moo tax après loo ci gis léegi da ngay gis sax ndeysaan ay épingle la ñuy jël corox corox corox corox parce que parce que day am ay téej ah corox corox léegi la nga gis sax ku mees boppam di fëgg boppam guk guk <laughs> man yow boo <laughs> mbokk yi yal nañu yàlla may tuub balaa dee di ñëw ah parce que téej nekk ci biir bu naaj bi tàngee du ñu topp dañuy walañ walañ ci sa bopp. moo tax dañuy dóor seeni bopp di corox corox ay épingle kenn xamul lan yow na nga bëgga a nag yow mu nga ku muus nga ku am xel nga ah toog un mois wala sa une semaine sa bopp bi ndox dugg ci raxasuloo ko ah mbokk yi lii ndoftale ci doomu aadama kon wax ji moom mooy bokk na ci mandaragay yowmal qiyaam moo di ne ay jigéen yoo xam dañuy bëri yére lool. waaye ànd ak loolu rafle lool lool lool te mooy comme ni ngeen ko gisee nii tey musiba la mu ngo yenent bi saasam tegaat ci ni rawatina nag li gën a am solo muy suñu wàllu diine xadis la boo xamante ni bii mbokki Xuzayfa mooy ki ko solo de nañ ci bàyyi xel ndax diine bii euh, mu ngoog yàlla ñu ko mooy li yenent yi wax rek buum la bu yàlla yoor yéen ñëpp pour ngeen war ci téye l'islam bi buumu yàlla la bu yàlla yoor ci suñu kaw yonent bi ne ku ci jàpp bu yàlla ñoddee ba nga ñëw aljana ngay cëppeeloo ci kon mooy suñu sauvetage dañ ci bàyyi xel bu